Abouatek dégage. Attaque dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek dégage. Abouatek depuis 2018 ba fi Aquatec ñëwee le problème yu commencé woon ñun ci suñu biir ñu waxtaan discuter ba trouver ay solution

li nga xamanteni mom la askan wi di xaar ak wa dëkk yi ngeen yëngil ba fu ñëwee ba léegi fitna lañu ñu jural ndox mi doyatul je pense léegi caméra yi jaar nañ ci kër yi su suba ba léegi amuñu ndox donc loolu wane na lu ne te li instant bi ñom ñofi fi nekk gérer gestion bi ba nga xamanteni ni ñoo yoroon dëkk bi nekk fi li musul am population bi buñu ñu yoroon gestion bi dinañ def lu jëmman parce que leer nañ ni buñu ñu ndox du am ta duñu naan ce qui veut dire encore une fois que ni état dafa wara encourager li nga xamanteni moy les entreprises locales ab GIE moo fi nekkoon bu dul GIE ëllëg beneen entreprise locale lay doon boo xam ne mi ngi ci gox bi compétence yaa ngi fi pour vous dire simple à chaque fois bu forage bi fees bu forage bi pané ki koy réparer ci deuk bi la dëkk koo xamante bénévolat lay def bu ñu wowe ñu la nga xamante ñoo nekk région de Thiès bala ñu def déplacement c'est un temps long très long bo xamante day métti trop pour ñu am ndox ce qui fait que mom moy def déplacement pour dire que né

ñun lool la ñu xam te loolu la ñuy dox yenootuñu rooteetuñu te suñu factures yi mën nañ koo fay quant à Aquatech bu ci duggee suñuy facture duñ ko mën a fay te duñu am fenn fuñ ko jooytoo kon nag yuuxu moom na jub fiñ ko war a jubee wax dafa jooy ñu ne la looy jooy mu ne ko fiñ ko bara war a ñu ma ko fa te fii lañ ko war a jooyee muy suñu forage bi ñu moomal suñu bopp ñun daal forage bi daal nañ ñu ko bàyyi suñu loxo feebar bi bare na ñu ne te ndox mi moo ñuy setal te amuñu ndox mi kon bu ñu amul ndox nu ñuy setee feebar bi day gën a law kon nag ndox mi na def ci dëkk bi